jaar ci siyaaram te di njëg yàlla. dëgg la nit yàlla daf koo bind. dëgg la nit yàlla daf koo bind. nit bàyyi ma duut malaaka. nit ki du bàyyi ma du malaayika. soxla dund roxo. dafa soxla dund ak yaram. soxla dund ak roxo. dund yaram bi moo laaj ñuy liggéey. dund ak yaram bi. loolu moo laaj ñuy liggéey. moo tax ñu ne ci seen métier ci seen am métier itam bu nawet jotee ñu tasaaroo ci àll bi di béy. looloo tax ñu nekk ci seen métier nekk ci seen métier ñu xamatu ñu dem ci àll bi di béy. buñ béyee ba am dundu yaram wi. buñ béyee ba am dundu yaram wi jënd leen. war na itam ñu jënd dundu roxo ngoro bi mooy gëm yàlla ak yi ci topp te dund ak roxo moo di gëm yàlla ak yi ci topp ak la ca topp ñuy topp yàlla ñu topp yàlla ak def lu baax ak di def lu baax yonent bi nee na xol dana xoomaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xol dana xoomaat ñu ngi ci yëngu ñu di xoomaatee ñu ci yëngu xoomaatee ñu ne ko weñ gu ñuul bu xoomaatee dañ koy namm xol bu xoomaatee naka lañ koy nammee ñu ne ko weñ gu ñuul day bu xoomaa jee dañ koy naan xol nag moom bu xoomaa jee nu ñu koy def. mu ne siyaara. mu ne siyaara. ak di déglu waat. ak ngay déglu ay waat. loolu mooy sabab yi suñu daje tey bii. loolu mooy sabab yi daje tey bii. parce que naaj bi ñu nekk ci at mu bees. daje naaj ñu nekk ci at mu bees. daje naaj itam yàlla def taw taw yu bees ci suñu réew. daje naaj yàlla def taw taw yu bees ci suñu réew. at mu bees mi yàlla na nekk di gën di at ci ñun. at mu bees mi yàlla na nekk di gën di at ci ñun. soppeeku bu bees bi di fi samp yàlla na gën li fi nekkoon ci ñun. soppeeku bu bees bi di samp yàlla na gën li fi nekkoon ci ñun. bët bu set yàlla na suñu ëllëg gën suñu dund. bët bu set suñu ëllëg yàlla na gën suñu dund. ci suñu diine. Atitul Dino. Atitul Kap. Atitul Kap. Atitul Reo. Atitul Reo. Bakal lagi tak tahu kita nak beli ni kita sedang. Kembali orang ramai sedang mabuk. Jom kita beli. Mangan saja. Hai, mana ini kau itu? Kita mula mencari ñi nga xam ne noonu la ñu ko daa dencee toujours. ñu digle nañ leen ko def lu ñu tere nañ ko bàyyi. loolu ñu digal nañ ko def lu ñu tere nañ ko bàyyi. luñ bàyyi bu ko kenn def. lépp luñ bañ. bu ko kenn def. ku bëgg sa bopp bëgg sa diine noonu ngay def. ku bëgg sa bopp bëgg sa diine noonu ngay def. maa ngi leen di denc itam. nit ñi denc itam. ngeen ànd ak gouvernement bi ci lépp lu lu nekk. ngeen ànd ak gouvernement bi ci lépp lu nekk. jox naa leen ndigal ci loolu. waaye mu ne jox nañu ndigal ci loolu. loolu ci la jàmm nekk. te loolu ci la jàmm nekk. pour ñun pour yéen pour gouvernement bi itam. pour ñun pour yéen pour gouvernement bi itam. nit bu bëggee diinaam. nit bu bëggee diinaam. fokk mu liggéey. fokk mu liggéey. ndax nit mën da dund te du lekk. ndax nit ki mën da dund te du lekk. topp itam lu topp gouvernement bi yàlla sant ci réew. topp mu topp itam gouvernement bi yàlla sant ci réew. ndax ku mu jàmmal nga mën a topp sa diine ku mu jàmmalu laa guddee da nga soxla wala sa diine. ndax ku mu jàmmal nga mën a topp sa diine ku mu jàmmalu da nga soxla woon leneen wala sa diine. gouverneur bi naa leen wax leen nuyu ngeen xam ko mu xam leen. gouverneur bi danañu nuyu ñu xam ko mu xam ne. Yang leen wax itam. kan? ñu wax itam. fii ci wetam la. ci wetam moo topp ci moom kooku moom fi la nekkoon. ñu toog ci wetam moo topp ci moom moom it fi la nekkoon. gouverneur bi keroog fan lañ koy wax moom Senador Sall la tudd. Ahmad Sall la tudd. Ahmad Sall la tudd. ñu di ko wax Senador. ñu di ko wax Senador. kii topp ci moom Moustapha Kane la tudd. kii topp ci moom Moustapha Kane la tudd. kon nag ñu xam ne Aboubacar Diop kooku du ci gan. yàgg na maire du ngi ak ñeneen itam ñoo xam ne ci gouvernement bi lañ bokk. ak ñeneen ñoo xam ne ci gouvernement bi lañ bokk. ñoom ñëpp seen liggéey. ñoom ñëpp seen liggéey. pour njëriñal réew mi pour jàmm réew mi rek la. pour njëriñal réew mi jàmm réew mi rek la. ñun suñu war dara ñoom mooy dimbali leen rek. ñun suñu war dara ñoom mooy dimbali leen. voilà ñun la ñuy liggéeyal. gannaaw ñun la ñuy liggéeyal. te suñu doom lañu fas. te suñu doom lañu fas. te réew. te réew. ku koy liggéey. ku koy liggéey. lu koy indi wërsëg. lu koy indi wërsëg. lu koy indi jàmm. lu koy indi jàmm. luy maye liggéey ku bëgg a liggéey liggéey. luy maye liggéey ku bëgg a liggéey liggéey. boo bàyyeekoon ci xeetu jaamur sax ñu bëgg la. soo bàyyeekoon ci xeetu jaamur sax danañu la ko ji. xataa bu dee suñu xeet. rawatina nag boo dee xeetu lii wu ma. kon nag war nañoo sant yàlla. kon war nañoo sant yàlla. bi nga xamee ne ay jaamur ñu daa àtte. bi nga xamee ne jaamur ñu daa àtte. ñun suñuy doom ñu àtte. yéeg suñuy doom bi ñu xasee. loolu war nañu ko sant yàlla. loolu war nañu ko sant yàlla bu ko def. te xéwal boo santee yàlla dolli. te xéwal boo ko santee yàlla dolli la. boo ko weddee yàlla mën na ko téye. boo ko weddee yàlla mën na ko téye. dara ñoo wax ak yéen lu jëm ci diine loolu lañ leen doon tàmbalee wax. dara wax ak yéen lu jëm ci diine loolu la leen di tàmbalee wax. wan leen itam wan leen am. wan ñu itam jam ñiñ xam nga xam ne lépp lu leen nekk yéen ñoo ma ko bokk nga xam ne lépp luñ nekk ñoom ñoo ma koy bokk luñ nekk ñoom itam lépp luñ nekk war gar la ci ñun ñu bokk loolu kon war gar la ci ñun ñu bokk kaw ñoom bu dee lu neex bu dee lu naqari bu dee lu neex bu dee lu naqari naqari kenn ñaanu ko yàlla waaye ndogal yàlla yi ko lu naqari kenn ñaanu ko yàlla waaye ndogal yàlla yi kenn xam ci dara lu yàlla dogal nag jàmm mooy góof rek lu yàlla dogal nag jaam bi dina nu muy góob rek. góob ci ron ndogal bi rek. góob ci ron ndogal bi. te xam ne lu ñuy dogal yàlla nakari nakari. te xam ne lu dogal nakari nakari. rek moo gën. xamal ni moo gën. ndax moo ñu gën a xam. ndax kii def di yàlla moo ñu gën a xam. moo ñu gën a yërëm. moo ñu gën a yërëm itam. lu ñu defal. lépp lu ñu defal. ñu xamoon lu tax mu def ko. buñ xamoon li tax yàlla def loolu. ñu ko mënee def ñoo koy defal suñu bopp. kon buñ ko mënee def ñoo koy njëkk a defal suñu bopp. loolu gëm yàlla laaj na ko ci ñun. loolu gëm yàlla laaj na ko ci ñun. natt bi weyaale woon ci jamono yi xamal nañu ko. natt bi weyaale woon ci jamono yi tëdd xamoon nañu ko. lépp lu yàlla mos a def rek ñu ko seetee gis mu gën. lépp lu yàlla mos a def doo ko seetee rek seet mu gën. kon nag ba tey lu yàlla def mooy lu gën. kon ba tey lu yàlla def moo gën. sakkaan bi nee nañu gën a nag. sakkaan souvent nag. bu tëddee nañu gënal. maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di passé seen gouvernement bi di wax leen. bàyyi ma ne ñu ngi ndokkeel ñu ngi ñuy nuyu ñu ngi ñuy passé gouvernement bi mu nuyu ñu. asalaamaaleykum mbooloo mi. mu ne asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu ci liñ bi di gërëm. ñu ngi nuyu bàyyi te gërëm. di gërëm te di ko sant. ñu ngi koy gërëm di ko sant. maa ngi yi fi teew. ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew. ak taalibe yi jullit yi fi teew yëpp. ak taalibe yi jullit yi fi wax. lii bàyyi wax. wax ma wax du waru gar. bu fekkoon ne wax duxul war a garam. kon loolu kon soxlawut mu di ci teg dara. ndax foo teg li ma waroon wax lépp baax na ko. ndax daanaka li mu waroon a wax lépp bàyyi waxal na ko moom. waaye nag ba tey. kon jaadu na ma wax daal. gannaaw yàlla def mu jaadu mu wax. fekk naa sànni ay kàddu. fekk kon mu sànni ci ay kàddu. Euh, wareef la ci man ma teew ci mbooloo mu mel nii di suñu kër. wareef la ci moom mu teew ci mbooloo mu mel nii ci jëf bu demee mu tey. ndax jullit na. mbooloom jullit na. mbooloo mi mbooloom jullit na. màggal bis bi. kon mu màggal bis bi. am na beneen beneen forme boo xam ne war na tax ma taxaw ci biir. am na beneen forme boo xam ne war naa tax mu taxaw ci. ndax gouvernement bi ñoo fi indi. ndax gouvernement bi ko fi indi. moo ko fi taxawal tey. moom moo ko fi taxawal tey. mu yeboo nag ne. kon bu yeboo nag ne. te ci loolu mooy suñu tey. surtout loolu moo ko fi indi tey. firndeem moo di. firndeem moo di. firndeem moo di. maa ngi ànd ak El Hadj Alioune Sarr bii di président assemblée régionale. ñu ngi ànd ak El Hadj Alioune Sarr mi nga xam ne mooy. président président assemblée. régionale régionale. Moustapha Kane bii di sama adjoint. Moustapha Kane mii di adjoint. ñu ñëw fekk si maire bi muy Babacar Diop. ñu ñëw fekk si maire bi muy Babacar Diop mii. ndax boo gisee loolu. mu ne boo ci fee loolu jaaduwul sax jiwaat yàlla mbooloo mu mel nii bu ci mel nii am sa teewu ci jaaduwul ci góor noor mbooloo mu xam ni moo ñëw nii toll nii am fii te taxawu ko kon nag kon ñu taxaw ci kon nag foog wareef la ci ñoom ñu taxaw ci nuyu leen nuyu leen ndokkeel leen ndokkeel leen ziyaar leen ziyaare leen gouvernement bi dara lu mooy gouvernement bi dara lu mooy war na maa du dara lu mooy. te lu ñu ci teg rek. lu ñu ci teg rek. mu amee lu ñu ko amee loo. mu xamee loo xam ne. dañ ko koo xamee loo. di def lu ñu ko def loo. di def loo xam ne. dañ ko koo def loo. di sàmm njaboot bi. di sàmm njaboot bi. di leen ketti. di leen teete. di leen dimbali. di leen dimbale. di leen jéem fanqal musiba bu fekkee yàlla mën loo na ko ba. di leen jéem a fanqal musiba bu fekkee yàlla mën loo na ko ba. di leen jéem a teg ci yoon. di leen jéem a teg ci yoon. sëriñ bi wax na léegi ne. Baye wax na léegi ne. am na xew-xew yu amoon ci gannaaw. am na xew-xew yu amoon ci gannaaw. loolu waral na. loolu waral na. am soppeeku ci jamono ji. ak soppeeku ci jamono ji. soppeeku bi nag. soppeeku bi nag. dëgg la am na. dëgg la xam na. waaye réew mi fa mu nekkoon ba tey mu nga fa. waaye réew mi ba tey fa mu nekkoon ba nga fa. li nga wax rek ci biir ci yàlla mu fa mu nekkoon ba tey mu nga fa. li ñuy wax rek ci biir. fa mu nekkoon démb ba tey ma nga fa. li ñuy wax parti bi fu mu nekkoon ba tey ma nga fa. li ñuy wax parti bi fa mu nekkoon démb ba tey ma nga fa. dëgg la amoon na ci ay kilifa yoo xam ne jiitaloon nañu leen. dëgg la amoon na démb ay kilifa yuñ ci jiitaloon. def nañu njuumte. def nañ ay njuumte. lii am am na jaaree nañ fi leen war jaaree. lii am am na ñu jaarale leen fa ñu war a jaar. waaye kooku wàññiwul dara ci dox dox réew mi. waaye loolu du wàññi dara ci dox réew mi. waaw léegi da nga am ci kër. ndax bu fekkee da ngaa am sa kër. ngay nekk borom kër. ndax nekk borom kër. xëy sa jabar ne xatit yàlla yóbbu ko. xëy sa jabar ne xatit yàlla yóbbu ko. wala ci njaboot bi yàlla jël ko yóbbu ko yóbbu leen. wala ci njaboot bi yàlla seet ku ko ci soob mu jël ko yóbbu. nga jàpp seen ngëm continué doxal sa kër. nga jàpp seen ngëm continué doxal sa kër. parce que misaal la ci réew mi ni mu meloon. loolu misaal la ci réew mi ni mu meloon. kon nag kon. ñu jàpp ne dara changé wu. ñu jàpp ne dara changé wu. ñu fi nekkoon démb ba tey moo fi nekk. ñu fi ñëwoon démb ba tey moo fi nekk. ñu ñu waar nag jàppante. ñu war nag mooy ñu jàppante. parce que parce que ñaaw ñaaw ci fi ngeen defante. parce que ñaaw ci fi nga defante. ku nekk nelaw wala yox yàlla jox nga jàpp ci. ku nekk nelaw wala yàlla jox mu doy la nga jàpp ci. ñu góorgóorlu daal. te góorgóorlu. rëkk-rëkk bii naroon am rëkk-rëkk bi naroon a am te yàlla fanqal ñu ko te yàlla fanqal ñu ko mu doon pour ñun mu doon pour ñun yoo xam ne ñu wan ëllëg ñu war a def loo xam ne danañu wan ëllëg ñu ñu war a def gouvernement bi nag gouvernement bi nag ñu ngi fi waay ci seen ñu ngi fi ci seen gis position ñu yàlla ñu fekk leneen loo xam ne seen ci loo xam ne ñëw fiis la buñ ko ko jooytoo

soppeeku bii yàlla def. yàlla doon yàlla ñu indi jàmm. yàlla ñu indil jàmm yaa rabbi. at lii tàmbali. at lii tàmbali. yàlla ñu indil jàmm. yàlla ñu indil jàmm. gouvernement bi gouvernement bi ñu di leen siyaar. gouvernement baa ngeen di nuyu di leen siyaara. te di leen eh, ñaan daal yéen ñëpp ngeen takku. te di leen ñaan yéen ñëpp ngeen takkaayu. di ñaan sëriñ bi daal di ñu fàtti moom itam ci ñaan. di ñaan bàyyi lii bu mu leen fàtte mukk ci ñaan. ndax ndax suñu jëm ñëpp.

gouvernement bu bees bi yàlla na gouvernement bu gën ci réew mi. yow mi yàlla taxawal fii yàlla ngay gën ci gën ci réew mi. yow mi yàlla taxawal fii yàlla yàlla def na gën ci réew mi. yàlla na yàlla dimbale ci li njëriñu réew mi. yàlla na la yàlla dimbale ci li njëriñu réew mi. yàlla na yàlla wattu. yàlla na la yàlla wattu. yàlla na yàlla dimbale. yàlla na la yàlla dimbale. yàlla na yàlla tappale sa xol ak sa xoli mbokk yi ngay atte. yàlla na yàlla tappale sa xol ak sa xoli mbokk yi ngay atte. yàlla yëkkati sa daraja yal na yàlla yëkkati sa daraja. baagale ci la nga gën a mébét. ba xajjal la ci la nga gën a mébét. yaa mboolem ñi nga bokk liggéey bi. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm gouvernement bi leen yore. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm gouvernement bi leen xewal. na ngeen xam ne fu ñu toll rek ñu ngi ñaan yàlla pour yéen. kon na ngeen xam ne fu ñu toll ñu ngi ñaan yàlla pour yéen. te loolu mosul ñoo gërëmee sax suñ bopp tax ñu di ko def. te loolu mosul ñoo gërëmee suñ bopp tax ñu di ko def wasalaam.

Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Allah. nekk ziyaara ngir yàlla. kon ziyaara bi ngir yàlla. ñu ngi dox ci benn ci bëri aljana ba mooy àgg. ñu ngi dox ci bëri aljana ba ba mooy àgg ñëw. te bu muy dellu garab. ba ba muy jëmmoo garab. loolu ñu ca namoon. loolu ñu ca namoon. dañuy jëf-jëf joo xam ne dara aljana la ko jëmee. maa ngi leen di jëf. jëf joo xam ne aljana la ko jëmee. mu ne jëfi jaam ñaar rek la. ñaar ñaar. jëfi ñaar jëfi jaam ñaar rek la. di jëf ngir wut sa njëriñ wala ngay font. di jëf ngir sa njëriñ mbaa ngay farat. jëf ji ngeen jëf tey. jëf ji ñu jëf tey. uti woon ci njëriñ lu teew. uti ci njëriñ lu teew. kon njëriñu la ëllëg ngeen ciy wut. kon njëriñu la ëllëg ngeen ciy wut. te loolu moo di ragal yàlla. kon loolu moo di ragal yàlla. ku ragal yàlla mooy kuy def lu ëllëg. dara daan yàlla moo di suñu def ngir ëllëg. mooy ki wàcc li bakkanam bëgg tey. mooy ki nga xam ne day wàcc li bakkanam di bëgg tey. ngir ëllëg. ngir ëllëgam. te loolu mooy maye aljanna. te loolu moo di maye aljanna. yàlla na ko ragal taxaw si kanamam. yàlla na ko ragal taxaw si kanamam. di tere sa bakkan lam bëgg. di tere sa bakkan lam bëgg. rek aljanna nga jëm. yow aljanna nga jëm. bokk ci mooy ragal yàlla kon ci mooy ragal yàlla mën a ragal yàlla bari na ragal yàlla te dana ñëw si léegi te dana ñëw si ñaari di am bépp càpputeef bu jaam di am ragal yàlla ñu caabi ñu koy ubbi ragal yàlla ñu caabi ñu koy ubbi ñun suñu diine moo di diine l'islam ñun di nga xam ne yàlla na wut geneen diine léegi lu may moom. diine nit la am nga xam ne yàlla na wut léegi geneen diine lu ko raw. alquran ma ne inna diine inda allahi islam ma ne woon yabtaqi xaaral islam diinan falam yuqbala minhu islam rek mooy diine fa yàlla. islam rek mooy diine fa yàlla. na nga ko topp beneen diine bu dul islam yàlla du ko nangu. na nga ko topp beneen diine bu mooy islam yàlla du ko nangu. lislaam nag. lislaam nag. dafa gën a woyof ci suñu diine. dafa moo tax yàlla tudd ko. moo tax yàlla tudd ko. waaye suñu diine lislaam. lislaam. liimaan. liimaan. lihsaan. lihsaan. jaam bi a mat. jaam bi mat. lislaam. lislaam. na liimaan. iman am na ñetti maqaama. am na ñetti maqaama. lixsaan. lixsaan. am na ñetti maqaama. am na ñetti maqaama. jaam bi soog a àgg ci boromam. jaam bi soog a àgg ci boromam. lislaam. lislaam. li ko jëkk. li ci jëkk. moo di tawbatu. mooy tawbatu. moo di tuub. mooy nga tuub. tuub moo di lan. tuub moo di lan. mooy génn ci lépp lu ñu ñaañee ñelloo lépp lu ñu sant. moo ci lépp lu ñu ñaañee ñelloo lépp lu ñu kooku mooy dëgg bu njëkk ci suñu diina. loolu mooy dëgg bu njëkk ci suñu diina. da ngeen dégg bu baax diina du wax rek ci lan la. na ngeen dégg bu ci sa ci bépp bu ñu ñaañee. boo ci bépp jikko bu ñu

juddoo ba fi léegi. ba juddoo ba am loo jëm. mën naa toog fii ci jotaay bi tuub ko mu mel ni su ko def. mën naa toog fii ci jotaay bi tuub ko mu mel ni mu su ko def. yéen it ma ne hatta inna dambi kaman laa damba la ku tuub bakkaar yaa ngi mel ni ku ko mës a def. yéen a tudd sa maanaam la sama wax na képp ku tuub bakkaar yaa ngi mel ni ku ko mës a def. kon nag tuub rek mën a jëf ci jamono yu xas yooyu. kon nag tuub rek moo mën a jëf ci jamono bi yooyu. ñu ngi leen a jeex. ñu ngi moom. yow ma jot. jaam bi natt na ci dara. jaam bi natt na ci dabaatal ci dara. tuub rek ci mën a dabaatal. tuub rek moo ci mën a dabaatal. kon nag nañu wax ñun wax ñu wax ci te nekk dëgg ci تبنا لله ورسوله تبنا لله ورسوله تبنا لله ورسوله تبنا لله ورسوله yàlla digal nañu ko ci alxuraan ne wa tuubu ilallahi jamii'an ayyuhal mu'minuun ku gëm yàlla rek tuubal jëm ci yàlla. yàlla digal nañu ko ci alxuraan ne ne képp ku gëm yàlla tuubal jëm ci yàlla. bu jaam bi tuubee. bu jaam bi tuubee. dëgg na dëgg bon dëgg na dëggoon bu jot ci lislaam dëggoom buy dëkk ci diine l'islam. li mu ci war a teg mooy listiqaamatu. anam li mu ci war a teg listiqaamatu. nga tuub nga jub te tuub la. moo di nga tuub jub te tuub la. jaam dana tuub ci bakkaat. jaam danay tuub ci bakkaat. fekk ba kanam ngay joosaat gannaaw ba kanam ngay. ba kanam ngay joosaat gannaaw kanam di sa baj jàngo. li muy tuub rek tuub ko. li muy tuub rek tuub ko. bon tuubul. kon day tuubul. tuub bu jub. tuub bu jub. fokk nga jub nag. suuf nag moom fokk mu jub. jub pàcc ci tuub bi. jub pàcc ci tuub bi. ba fasoo laa dellu ci li nga doon tuub. ba fasoo dellu ci li nga doon tuub. feeg soow bàyyi ko ci ndab la dellu ci xanaat lañ ko. feeg soow bi bàyyi ko ci ndab la dellu ci xanaat lañ ko teewal. loolu mooy jub ci tuub. loolu mooy jub ci tuub. soo defee tawbatu ak istiqaamatu. soo defee tawbatu ak istiqaamatu. ba tey lislaam bi ma tagu dee. ba tey kat. sababu lislaam la. nga def ci nag nga dolli ci nag taqwa. nga dolli ci nag taqwa. moo di ragal yàlla. mooy ragal yàlla. nga topp ndigal nga topp ndigal yàlla yi. bàyyi tere yi. tere yàlla yi. léegi tuub nga. léegi tuub jub nga. jub nga. toppal li yàlla digle bàyyi tere rek. toppal li mat na. kon mat na. ñett yoo maqaama yooyu fokk jaam bi boole ko soog a nekk jullit bu mat. ñetti maqaama yooyu fokk jaam bi boole ko soog a nekk jullit bu mat. te jullit bu mat amu kese la. te jullit bu mat. amu kese la. ñu teg saa yu rek la. ñu teg saa yu rek la kat. aljana rek la jëm. aljana rek la jëm. pour ban ci téye yàlla ba ba léegi. foofu yan la ban. te téye yàlla ba ba léegi. te jaamoom. te jàmm moom. te jàmm bi muy jàmm. jaamu bi muy jàmm. yàlla mën naa baax nangu ko bu ko neexee itam mu set. yàlla mën naa baax nangu ko ba su ko neexee itam mu set rek. te su seetee rek gis ci si tamit. te wóor na la yàlla muy set gis ci. moo tax yonent ne. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne. ñun ñëpp alaku nañ. ñun ñëpp alaku nañ. nit ñëpp. nit ñëpp alaku nañ. lu may gëm yàlla. yéen ñu gëm yàlla. ñu gëm yàlla alaku nañ ñu mooy ñu xam. ñu gëm yàlla alaku nañ ñu mooy ñu xam. ñu xam alaku nañ ñu mooy ñu jëfe lañu xam. ñu xam alaku nañ ñu mooy ñu jëfe lañu xam. ñooy jëfe alaku nañ ñu mooy ñooy sellal seen jëf. ñooy jëfe alaku nañ ñu mooy ñu sellal seen jëf. ñu sellal seen jëf itam ñu ci xatar ju rëy. ñu sellal seen jëf itam ñu ci xatar ju rëy. kon nag. kon nag. tuub naa maa ngi jubal. maa ngi jubal. maa ngi topp ndigal bàyyi tere. maa ngi topp ndigal bàyyi tere. te jàngoro yi ci bakkan bi ne ci. te jàngoro yi ne ci bakkan bi ne ci. booy it taxagut jaam bi mucc. booy it taxagut jaam bi mucc. fokk nga dugg ci gëm yàlla itam. fokk nga dugg ci gëm yàlla itam. gëm yàlla mooy nga dogu. gëm yàlla moo di nga rek mooy sa borom. ngir yàlla rek moo di sa borom. moom rek la war a jaamu war loo jaamu ko ko mooy. yàlla rek la war a jaamu war a jaamu ko ko mooy. yàlla moo di kan. yàlla moo di kan. ci la xamal boppam. ci la xamal boppam. ci la moo bindee asamaan fii ngay gis. ci la moo bindee asamaan fii ngay gis. ak suuf si nga xam ne ci la taxaw. ak suuf si nga xam ne yow ci la taxaw. bind la yow nit ki. bind la wala yow nit ki taxaw. bind li ngay gis yëpp. bind mboolem li ngay gis yëpp. jërikat. jërikat. warwaay yi. warwaay yi. mbayteef yi. mbayteef yi. géej géej liy jóge ci géej gi. géej géej liy jóge ci biiram lépp. lim na ci yu bari. lim na lu ngeen amul dayoo. loolu moom amul dayoo. li yàlla bind daal. li yàlla bind ba ci la nga mën a gis ak la nga mën a a gis. rafet. lu sa xel daj ak lu sa xel daj. ak lu sa xel bu bët ak lu sa xel bu bët. ay mbindeefam rek moom rek a xam seen dayoo. ay mbindeefam rek moom rek moo xam seen dayoo. kooku rek mooy sa borom nga gën a sóob. kooku rek mooy sa borom nga gëm ko nag. te mooy ku fi nekkoon ba fi dara nekkut. mooy ku fi nekkoon ba fi dara nekkut. moo fi nekk bu fi yëpp jógee. moo fi nekk bu fi yëpp jógee. tey jii ñuy defe ne yeneen nañ ci itam moom rek a fi nekk. tey jii ñu defe ne nag yeneen nañ ci moom rek nga fi nekk. kooku rek moom lañ war a gëm ne mooy suñu borom. kooku rek moom lañ war a gëm ne mooy suñu borom. diine lislaam. diine lislaam. mooy diine ji ñëw. mooy diine ji ñëw. goreel ñu. goreel ñu. suñu jaam ak lu dul yàlla. suñu jaam ak lépp lu dul yàlla. jébbal ñu ñu jaamu yàlla rek. jébbal ñu rek. ñuy jaamu ak yàlla. soo gëmee yàlla. boo gëmee yàlla. gëm yàlla mooy xéewal bi nga xam ne. gëm yàlla moo di xéewal bi nga xam ne. moo gën ci mboolem xéewal yàlla yi. moo gën ci mboolem xéewal yàlla yi. kenn moo ci xëpp. te mboolem xéewal yàlla yi moo leen nangu. te mboolem xéewal yàlla yëpp moo ko nangu. gëm yàlla moo gën a am yéen. su la ma yàlla maye yow jaam bi. bala yàlla maye yow jaam bi. karaama boo xam ne moo ëpp ak yeneen. karaama boo xam ne moo ëpp ak yeneen. ma loo wax lu may alhamdulilah rabbil alamin. kon yow loo wax lu may alhamdulilah rabbil alamin. ma ne. bàyyi ne. ku xam yàlla mooy wali yi. ku xam yàlla mooy wali yi. dëggoon bu jëkk. dëggoon bu jëkk. moo di ci si ma fa jangaton sank moo di ci ma fa jangaton sank mooy tuub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 xamante ni njëkk yoon nag gëmu mooy rabbul alamin ma ne bàyyi ne ku xam yàlla mooy wali yi ku xam yàlla mooy wali yi dëggoom bu jëkk dëggoom bu jëkk moo di tuub ci ma jàngatoon di xuddiitu yetoo nga ca xutbaan yetoo nga ca. xuddiitu yetoo nga ca ab yonent. ab yonent. dëggoon bu jëkk moo di liimaan. dëggoon bu njëkk moo di liimaan. dëggoon bu mujj. dëggoon bu mujj. moo di nubuwatoog risaalati. mooy nubuwatoog risaalati. tawbatu mu njëkkee nag mu gën a suufee. tawbatu mu mu gën a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 ndax moom du nekk yéefar mukk. du mooy yàlla mukk. du mooy yàlla mukk. moom dëggoom bu njëkk rek moo di liimaan. moom dëggoom bu njëkk mooy liimaan. dëggoom bu mujj moo di nubuwatu risalatu. dëggoom bu mujj. dëggoom bu mujj. mooy nubuwatu risalatu. mooy nubuwatu ak risalatu. ma ne liimaan a gën nubuwatu moo gën risalatu. mu ne liimaan moo gën nubuwatu moo gën risalatu. lu tax. ana lu tax. moo ko jur. moo ko jur.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 gëm yàlla moom. moom it am na ñetti maqaama. moom it am na ñetti maqaama. maqaamaam bu njëkk. maqaamaam bu njëkk. moo di sëkku dëgg dëggu. mooy sëkku. dëggu dëggu. lu ca topp. lu ca moo di lixlaas. mooy lixlaas. sellal. sellal. lu ca mujj. bu moo di tumaaninatu dal. tumaani tumaan. dal. moo di dal. mooy nga dal. dal ci yàlla. dal ci yàlla. sukk mooy lan. sukk mooy lan. mooy sa yàlla. mooy sa jëflanteeg yàlla. nga dëggu ca. nga dëggu ca. bañ caa jublu. leneen lu dul yàlla. bañ caa jublu leneen. lu doxul yàlla. képp koo xam ne li ko def.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 Ixlaas ak Sikku. dañoo jegeñante lool. dañoo jegeñante lool. ba kuy saadix rek muxlis la. ba kuy saadix rek muxlis na kuy siddiq itam muxlas la. kuy siddiq itam muxlas la. Ixlaas. Ixlaas. moom it soo xamee ne ca yéen a moom it soo xamee ne ca yéen a jeex. ca buur ga. ca ga. ca jëf ja ci ween ba ca mucc. ca jëf ja ci ngeen ween ba ci mucc. lépp ngir yàlla rek la. lépp ngir yàlla rek la.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

ñu indi ci misaal mu gàtt. ñu indi ci misaal mu gàtt. te yàlla na ñu julli leen. te yàlla moo ñu wax ni julli leen. waxtu julli wi teew na. waxtu julli wi teew na. kenn du mën a julli te laabuloo. kenn du mën a julli te laaboo. ndox rek la mën ndox la ndox. foog yàlla may la ndox de. foog yàlla may la ndox. nga soog mën a jàpp. nga sangu. mbaa nga sangu. xam nga suturaan awra. xam nga suturaan awra. boo la ko yàlla may. yow boo jëlee loola la ko yàlla may. foog nga kattanal mën a taxaw rukoo si jël. kattanal mën a taxaw rukoo si jël. loolu foog loolu foog nga am kit boo ba mën a am kattan loolu. ba mën a am kattan loolu. ku lay jox kit bi nag. ku lay jox nag tam kit bi. nga xarmal. nga xarmal. du wéy de lu ana sa alxuraan. ana yow sa alxuraan. alxuraan yàlla ji rek ci nga mën a jaar. alxuraan yàlla ji rek ci nga mën a jaar yàlla. nga mën a jullee. ci nga mën a jullee. tur yàlla rek mooy ponk yëpp. tur yàlla rek mooy ponk yëpp. kon nag seet naa julli bi bu ñu ko seetee ci njëlbeen ba ci nit loo ci def. kon seet na julli bi bu ñu ko seetee ci njëlbeen ba ci nit loo ci def. pàkk foog nga am pàkk am sa suuf. foog nga am pàkk am sa suuf.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 bakkan boobu delloo yow nag. boo jotee maqaamam lixlaas yi. boo jotee maqaamam lixlaas yi. saa yu ne ñu ngi jéem a fëgg rek pour duggaat. saa yu nekk ñu ngi jéem a fëgg ñu jéem bëgg a duggaat. boo ko dàqee ba mu set ci wécc nag. boo ko dàqee ba mu set ci wécc nag. loolu mooy tumaane na.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 moo di foo toll. ngay fàttaliku. ngay fàttaliku. ñëpp gi yàlla yi ñëpp seen lépp. ñëpp gi yàlla yi ñëpp seen lépp. te biir. te biir ak lépp yàlla ngi gën ko jàpp saa yu ne. ñëpp yàlla ngi ci jàpp saa yu ne. ñëpp yàlla ngi ci jàpp saa yu ne. mooy teew loolu daay. daa teew loolu daay man. bu yàggee bu yàggee yàlla daf lay jege yàlla daf lay jege ba nga teew ak moom ba nga teew ak moom mooy musaadatu mooy musaadatu soo teewee ak moom soo teewee ak moom dal di xam yow ak jëmul ak ci ak ci ak turam ak turam ñoo fi des ba xaw. ñoo fi des ba xaw. lu ñu moom daf fi jógee. lu ñu moom daf fi jógee. te yow loo xam ne. loo xam ne. te loo xam ne. yàlla la jógee. ci yàlla la jógee. wala loo xam ne ci yàlla la jëm. wala loo xam ne ci yàlla la jëm. ku dul yàlla mënalu ko dara. ku dul yàlla mënalu ko dara. ñu fi ne léegi. ñu fi ne léegi. mënaluñu yàlla dara. mënaluñu yàlla dara. ku mënal yàlla dara du ko yow itam. te ku mënal yàlla dara. bëgg ñëw mukk. kon nag ku bëgg a dëgër. kon ku bëgg a tëral. jàppal ci yàlla. jàppal ci yàlla. kuy làqu làqal ci yàlla. kuy làqu làqu ci yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy dimbandiku dimbandiku yàlla. kuy dimbandiku dimbandiku yàlla. kuy bëgg bëggal yàlla. kuy bëgg bëggal yàlla. mbindeef yëpp. li ñëw yëpp. ñu jëkkoon ñu mujj. ñu jëkkoon ñu mujj. ñun ñëpp nekkoon di say noonu. ñun ñëpp nekkoon di say noonu. ñun ñëpp ñu ngi la fexeel. ñoom ñëpp ñu ngi la fexeel. ñun laa jëm moos gën a dégg la yàlla jox. ñun laa jëm moos gën a dégg la yàlla jox. su ñëpp dajewoon. su ñëpp dajewoon. ñëpp di say xarit. ñëpp di say xarit. ñëpp di la wutal. ñëpp di la wutal. mënuñ laa jox benn pepp. mënuñ laa jox benn pepp. bu la yàlla joxul. bu la yàlla joxul. yàlla rek a mën a joxe moom. yàlla ku dul yàlla neen la. neen la ak moom la ñu xool. wala dañ koy wax te gëmuñ ko. wala nag dañuy wax loolu te gëmuñ ko. lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du dara. lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du dara. ku dul yàlla. ku dul yàlla. bu fekkee am na. bu fekkee ne xam na. amul dara lu mën a joxe. amul dara lu mën a joxe. yàlla rek a mën a joxe. yàlla na sama war a bokkal. yàlla rek mën a xam. yàlla rek sama war a xam. ñu gëm yàlla te jàpp ci yàlla. ñu gëm yàlla te jàpp ci yàlla. li mu bëgg nañ ko wut ci ni ko yàlla santaane. li mu bëgg nañ ko wut ci ni ko yàlla santaane. sabab yi war nañ cee dugg ndax yàlla ko waral. sabab yi war nañ cee dugg ndax yàlla ko waral. lépp lu jaam bëgg war na ko sabab yi. lépp lu jaam bi bëgg na ko sabab yi. waaye na ko wóor ne. waaye na ko wóor ne. sabab si mënu ko jox dara. sabab si mënu ko jox dara. yàlla koy jox. yàlla koy jox. jaarale ko ci sabab bi. jaarale ko ci sabab bi. sabab yi. sabab yi. dana koy misaal ne mi ngi mel ni. bàyyi ne dana koy misaal ne mi ngi mel ni. suñu yàlla suñu yalwaanukaay yi taalibe yi am réer. suñu yalwaanukaay yi. taalibe yi yalwaay. taalibe bu jant sooyee. taalibe bu jant sooyee. dafa raxas kenn yalwaanam ba mu set. day raxas kenn yalwaanam ba mu set. mu dem di yalwaan. mu dem di yalwaan. xoolul kenn ba ni moo koy jox reer de. xoolul kenn bi kat ni moo koy jox reer. ku ko sarax defal ko jikkal bi lay soxal. sarab damaa ko ci këll bi kooku la xool. suñ ne si ñu ne teew yëpp këll bi la am kaay la. suñ ne si ñu ne teew yëpp këll bi la am kaay la. bu dee tool bi. bu dee tool bi. te këll bi la am kaay la. këll bi la am kaay la. yàlla lay sarax defal la jeeg. yàlla lay sarax defal la ko jeeg. bu ca defut it yow def nga la la war. bu ca defut it yow def nga la la war. yàlla na la sabab lu sabab lu war. yàlla na la sabab lu sabab lu war. bu la joxut ci tool bi jox la feneen. bu la joxut ci tool bi jox la feneen. moom moom lépp. moom moom lépp. ak fépp. ak fépp. mu taaylu ëllëg. mu taaylu ëllëg. lépp ci loxoom la ne. lépp ci loxoom yàlla. ma nga gën a wóolu la ne ci loxol yàlla. ma nga gën a wóolu la kon la nekk ci sa loxol yàlla. ci lu nekk sax ci sa loxo. ci lu nekk sax ci sa loxo bi. am na loo xam ne. am na loo xam ne. moo ci suuf. moo ci suuf. denc lu bari. denc lu bari. yàlla nekkal. yàlla nekkal. nga gis. nga gis. lu la jaaxal yàlla faj ko. nga gis yow lu la jaaxal yàlla fajal la ko. moo gën fuuf nga denc lu du jeex. moo gën fuuf nga denc lu du jeex. am na ñu amul dara. am na ñu amul dara. te soxla yi ñu mën a faj. te soxla yi mën a faj. ñu dajale lu bari mënuñ ko faj. ñu dajale lu bari mënuñ ko faj. waaye nag ku gis rek mooy gis loolu. waaye ku gis nag yaa gis loolu. ñu gisul nag. ñu gisul nag. liñ gis rek lañ wóolu. liñ gis rek lañ wóolu. waaye liñ gis dara ci suuf. waaye liñ gis dara ci suuf. li nga xam ne moom lañ gis. li nga xam ne moom lañ gis. bu fekkoon ñëpp danañ gis. bu fekkoon ñëpp danañ gis. ñu bëri na ñu xam ne yéen ñu may waxat dara nañ leen la xaw. kon dama kaw kàlla nañ ko. ñoom ñooy bàyyi di di di wax ak yéen kon dama xam ne yéen dara nañ leen la xaw. ma ne karaama si yooyu it kenn du ko waxtaane. karaama si yooyu kenn du ko waxtaane daal. waaye karaama képp gi duñ ko waxtaane nan la ko doxee. waaye sant yàlla daal lañ war a. waaye sant yàlla rek. moom la ñu war a njëkkee suñuy wax moom la ñu war a mujjee. moom la ñu war a njëkkee suñuy wax moom la ñu war a mujjee. jaam bi. jaam bi. li ma waxaale yëpp ci digganteem ak boromam la. li ma waxaale yëpp ci digganteem ak boromam la. soo rafetalee sa diggante sa borom nag. soo rafetalee sa diggante sa borom. bu nga rafetal sa jikko itam ànd ak ñëpp mbindeef. da nga rafetal sa jikko ànd ak ñëpp mbindeef. boo ma weesu ba nekk aji yéwénal. boo ma weesu ba nekk aji yéwénal. wóoy suñu xarala yi. mooy suñ xar bi. wàllu yi la woon loo xam ne. wàllu yi la woon loo xam ne. gannaaw bi yéen a ngi fi ñëwee ci saabaam. gannaaw bi yéen a ngi fi ñëwee ci saabaam. la soog a feeñ. booba la soog a feeñ. waaye yéen a ngi fi tuddoon na ko ci jamonoom. waaye yéen a ngi fi tuddoon na ko ci jamonoom. dafa dëgg woon àddina bi. dafa dëgg woon àddina bi. système bi lay faraatoo li muy nekk. système lay faraatoo li muy nekk. ci lay faraatoo li muy woddoo. ci lay faraatoo li muy woddoo. mas naa dem ci sën. mas naa dem ci sën. di far li muy nekk. di bor loolu lépp. ab xaj a nga gisoon ba. ab xaj nekk ca sën ba. moo ngi di lekk ca mbedd ma ca sën ba. moo ngi di lekk ca mbedd ma ca sën ba. xaj bu baw ko. xaj bi di ko baw. mu ne ko bu ma baw. mu ne ko yow xaj bi bu ma baw. jaamu yàlla nga man jaamu yàlla la. yow jaamu yàlla nga man lii jaamu yàlla la. lekkal ci sa kanam ma lekk ci sama kanam. lekkal ci sa kanam ma lekk ci sama kanam. xamuloo maa la gën xamuloo yaa ma gën. xamuloo maa la gën xamuloo yaa ma gën. ñu demee sa kanam yàlla. bés bu ñu taxawal ci kanam yàlla. mu gërëm la man mu gërëm la xam ne. yàlla gërëm la gërëm la nga xam ne yaa ma gën. su boobaa nga xam ne yaa ma gën. su ma gërëmee ma ne nag ma xam ne ma la gën. su ma gërëmee loolu nga xam ne ma la gën. moom laysul xaraniin. moom laysul xaraniin. moo tax wàllu yi ne. moo tax wàllu yi ne. boo baaxee ci ku nekk. boo baaxee ci ku nekk. te bon ci benn xaj sax. te bon ci benn xaj sax. yàlla du la bind ngay ku baax. yàlla du la bind ngay ku baax. yéen a suñu ko nee. yéen a suñu ko nee. jigéen dem na safara ngir jenn janaat. jigéen. ndax nga soxla bi jënd dina. daf koy yaaw. daf koy yaaw. joxut ko mu lekk bàyyi wu ko mu xare. joxut ko mu lekk wëccëg gannaaw bi mu xare. ba mu dee ngi xiif. ba gannaaw bi dee ngi xiif. ba mu dee yàlla yóbbu ko safara ngi loolu. ba mu dee yàlla yóbbu ko safara ngi loolu. kon nag ñu wasoo suñu borom itam. يا بنا سالم على ما وللخلق رحمة وشفاء هل يا ربنا هادم الأمان وللخلق رحمة وشفاء هل يا ربنا وسلم على من وللخلق رحمة وشفاء صلي على آل مدامة هو لخلق رحمة وشفاء حيث ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما تولت سماء صلي على فناء آل لخلق مصرفه لم يدعوك في علاك وقد حا لسنا منك دونه وثناء اللي ربنا هو لخلق مصرفه أحسن صفاتك لناس كما مثل النجوم الماء صل يا ربنا وسلم على ولخلق أنت مصباح كل فاعل فما كان دور إلا عن ضوئك نضوى وكرم لك ذات الأدب في عالم الغيب ومن قد آدم الأسماء يا ربنا والآل والأمان ولخلق رحمة لله بشرت امهاتك الانبياء سمي يا ربنا هو للخلق رحمة تتباهى بك العصور وتسمى بك علياء بعدها Thank you. للخلق مسؤول رباه نسب تحسب العلا بحلاه فلدنا نجومها الجوزاء يا ربنا وسالم لما هو للخلق رحمة رباه عبد إغلق ودين وفخر

ڪيڙا ورندڙ ماڻهو ريڙا هو لخلق رحمة وتوالت بشرى الهواتف أنفاس ولد المصطفى وحاق لنا وتداعى إيوان كسرى آية منك ما تداعى بنا يا ربنا لنا ولفقر مدودنا وغدا كل بيت دار وفيه قربة من خمودها وبنا صل يا ربنا وسلم لنا وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء صل يا ربنا وسلم